Salam, salam, guys. J'espère que vous allez bien. Alors, merci et bienvenue sur notre chaîne YouTube Kenza 221. Bien sûr, la chaîne des news, des plus belles chroniques, la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game. Donc, jusqu'à présent, vous vous êtes pas encore abonné. Mais vous attendez quoi au fait Abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, nous avons ben sound ben sound bo xamante ni calligraphe moko guenné en featuring avec Polyman le sound est intitulé Pen ak Banna donc ci sound bobu la wax tay expliquer et détailler après yéen tamit ngeen mëna wax seen xalat ci commentaire Légui ce qu'on va faire moy dañuy xoli un peu rek sur la vidéo ñëwaat légui légui ay ca let's go. Banna Banna. Rock Music. Eh, calligraphe Daga Music. Banna. Havana. su ma la gisul damay misère gis la keneen bëgguma. ok gars sound baa ngi noonu eh, essai intitulé Peine ak Bana Calligraphe nag moo invité Polymane ci sound bi mais avant tout nañ wax ci ñaari artistes yi muy Calligraphe ak ki nga xamante ni moo di vraiment ils sont très talentueux en plus seen diwo dafa nice. kii dafa ñëw way kii ñëw rab donc juste pour juste pour wane ni ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk am na foo mënee te boo leen xoolee ñoom ñaar ñëpp sax way nañ benn ins mais calligraphe gis naa ni rab la gën a mën ko way léegi nag ñu dugg ci biir sound bi sound bi sound loof la bien sûr et mën naa ni titre bi dañ koo inspiré ci Omar Pène parce que ci biir sound bi boo leen dégloo bu baax Puliman mu ngi naan ni Omar Pène bëggee bànna noonu laa la bëggee plus sound bi 100% musicalité mo non mais je vous le jure man nga ko déglu même so xamul lu wax tu peux écouter le sound sans pour autant comprendre les lyrics so xamul paroles yi tax il suffit juste nga seetaan vidéo bi rek di nga comprendre tu peux comprendre à travers les images parce que sax même image yi dañuy wax. bo leen seetaanee vidéo bi rek automatiquement di nga xamné sound bi kat sound love la genre gel bi ci nek appel vidéo bi rencontres euh, rencontre ci bateau bi mais aussi leurs habillements en blanc lolu yëpp ça permet de comprendre yow mi nga xamanteni ne nii yaa sound bi te euh, comprendre lyrics yi il suffit juste nga seetaan vidéo bi rek automatiquement di nga comprendre li nak la analyser ci sound bi li ma leen di jox comme conseil nak moy suma ma la prochaine fois ñu gëna focus gëna job ci côté lyrics yi pour mu gëna dope mu gëna riche parce que lyrics yi selon moi di sena riche lolu la len di jox comme conseil mais à part lolu lepp impact lepp nice donc gars s'il vous plaît daw leen téléchargez télécharger ji sound bi ngeen ko en même temps Gen bàyyi xel ki nga xamante de ni moo calligraphe parce qu'il est très talentueux abonnez abonné sur sa chaîne YouTube sa page Instagram et sur sa page Facebook may ko nopp bàyyi ko xel te tamit teg ko loxo muy mom di polyman. parce qu'ils sont tous les deux talentueux léegi nak wax leen sen xalaat ci sound bi no leen ko gisee ak tamit gisee la vidéo lo leen ni jox conseil ki nga xamante ni calligraphe ak tamit ki nga xamni ne moo polyman à vos mu alors c'était ça la vidéo du jour avec votre Kenza 221 n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager mais aussi de liker Comment sort le je suis sur Instagram sous le nom de Kenza l'officiel ma page Facebook bien sûr Kenza 221 sur TikTok Kenza national et sur Snapchat Kenza Diallo Allez, peace and love la mi hein. Gros bisous, restez bien connectés. À la prochaine et amlen diam. Bye bye.